d'accord nañ ci loolu waaye tey bu dente ni dañoo jiite chauffeurs yi ak transporteurs yi doon nañ war a wax chauffeurs yi kañ geen war a mën a taxaw ak kañ ngeen war a mën a départ ndax ay points essentiels lañ développé pour war cee gagné ci suñ diggante ak état bi mais am na loo xamante ni su amee pertement lu ñu jural yenn oto yi daw yenn oto yi taxaw kooku mu warta mën a ne tataay yi bi nekk ci biir dëkk bi ay oto transport en commun ñu ngi daw taxi en ville ñu ngi daw sept places yi ñoo taxaw kaar yi ak dama yaakaar ne grève bi du grève gauche ak droite grève bi grève générale la war ñun ñëpp ñor ko partagé ndoo su ko defee ñu gañeendoo ci ensemble waa regroupe waa regroupement bi ñoo moom tata yi ñun ñuy wax yow ay set base lañ am ak i car mais ñun ñëpp ñoo bokk yem taxaw ñun ñëpp ñu taxawandoo bu ñu nee nañ départ ñun ñëpp ñu départ ndoo ndax amul kenn ku ci war a gagné wala kenn ku ci war a perte ñun ñoo war a taxaw demandé ay état suñuy problème majeur teg waaw merci beaucoup